entretien la Ousmane Sonko nekk njiitum euh, Pastef daal di amal fële ca France 24 tey jii gannaaw nag bi nga xamante ni journaliste bi daal dina koy laaj xalaatam ci décision bi nga xamante président Macky Sall daal dina koy rek jël euh, dox ci digganteem ak li nga xamante ni mooy troisième candidature moom Macky Sall xamle na ni nag du bokk ci boobu lépp jongante Ousmane Sonko nag euh, la mu tontu journaliste bi du leen lu dul laataa may wax ci loolu damay rek xamle ni man jamono ji ab prisonnier la waaye amul benn décision de justice buy xam ne ni euh, ab résidence euh, surveillée rek la nekk ba tax na nag muy xam ne ni dañoo salfaañe li nga xamante ni mooy ak ak yelleefam te loolu la nag ñu ko def lenn lu dul Macky Sall ak ay nguuram moom i tamit nee xam na ni euh, li nga xamante ni Macky Sall daal na koy wax jarul benn yoon ñu koy félicité wala yi tamit ñu koy rek tàccu dafa daal di respecté li nga xamante ni mooy la constitution loolu la nag la Macky Sall daal di rek respecté mooy kàddu yi nga xamante xamante ni Ousmane Sonko njiitum Pastef daal dina koy rek yëkkati muy xamle ni également lu daw yaram la naan Macky euh, moo fi nekk premier euh, président boo xamante ni jël na décision xamle ni ci ñaari mandat rek lay yem waaye buñ sukkandikoo ci ñi nga xamante ni mooy Mauritanie wala tamit Mali lim na ay pays yoo xamante ni xamle na ni ñooñ ñooñu le nag daal ñuy def li nga xamante ni mooy ñaari mandat rek daal di rek abale donc li nga xamante ni décision bi Macky Sall jël jarul tàccu benn yoon wuy ni euh, li nga xamante koy def muy ne du bokk ci li nga xamante ni mooy euh, troisième mandat bi amul leen loo xamante ni jéggi na da wala amul leen loo xamante ni lu exceptionnel la ndax tamit xam le ne ni Macky dafa rek daal di yéex a joxe boobu lépp décision ndax tamit ginnaaw bu fekkoon ne ba mu taxawee en 2016 la nga xamante ni waxoon na ko yëkkati na ko xam le ne ñaari rakk rek lay def daal di sëlmal wala tamit la nga xamante ni bind na ko ci livre boobu ñuy tuddee au cœur du pays Macky su boobaa dina jaroon li nga xamante ni mooy félicitation wala aussi jaroon ko encouragé waaye tamit dafa bàyyi ba mu trop tard ndax tamit mi ngi xam le ni lu toll ci sept cent personnes daal dinañ leen teg loxo ay journalistes ñi dañ di teg loxo euh, lu tolloo fukki doomu aadama ak juróom-ñaar jot seen ñàkk seen bakkan wala lu ko ëpp moom Ousmane Sonko xam le na ni loolu yëpp fi xew du lenn lu dul ko rek daal di waral donc bi euh, du lenn pression bi nga xamante ni daal dina koy rek subir au niveau national ak international moom Ousmane Sonko mi ngi xam ni euh, plainte CPI bi nga xamante Juan Branco daal da koy rek annoncé ngir plainte ki nga xamante ni mooy euh, président Macky Sall loolu nag bokk na ci li nga xamante ni moo waral moom Macky Sall mu daal di rek dellu ci waaye mi nga xam ne de li mu jot a def nii du leen la ci moom mi xam ne ni ab lajj bu réeréer la ci kii nga di njiitum réew mi di président Macky Sall ndax nag lu ko tax a deltu ginnaaw du leen lu ab plainte contre ces pays ak itamit différents organismes yi nga xamante lu ci mel ni Nations Unies ñoom incité à ce que Mourad renonce ci li nga xamante ni mooy troisième mandat bi waaye tamit Ousmane xam xamle na ni Macky Sall defu ko benn yoon ci euh, sagoom waaye tamit euh, journaliste boobu wéy di ko laaj lu waral muy woowee kii di président Macky Sall ab dictateur muy xam ne ni moom Ousmane Sonko lu tax mu naan ko euh, du leen lu dul ñi nga xamante ni jot nañoo ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ni mooy événement yi fi jot a jàll depuis mars mille vingt et un ba juin deux mille vingt muy wéy di xam ne ni démb gis na ni ci buntu palais ba ñu def ab mobilisation ne dañuy dem pour féliciter kii di président Macky Sall ak itamit di ko tàccu Ousmane Sonko muy wéy di xam ne ne loolu ab faat parloo mënu ko wees ndax lu tolloo 17 personnes fukki doomu aadama ak juróom-ñaar teg nañ leen loxo ci lu ko waral du leen lu dul ñoo taxaw ci buntu kër kii di Ousmane Sonko fële ca cité kër góor gi doon ko seet ñoom ñooñu nag policiers yi daal leen di rek gazé ba teg ci loxo lu tolloo kii doomu aadama ak juróom-ñaar jamono ji ñuy waxee ak yéen président Ousmane Sonko nee na ñoom ñooñu le nag la ñuy fële ca prison ba ñoom rek ñoo ko xam ndax ñu ngi leen di mun euh, xataa xataal lu baax lu méttee méttee méttee. wuyaat di xam le di rek nommé ay ministre privé euh, di ne ñu rek ñi nga xamante yi di instrumentaliser li nga xamante ne mooy ab pour attaquer benn opposition tey tamit di teg loxo ñi ni taskatu xibaar la loolu leen ab jaay doole doole ak dictature loolu la nag nee na moom Ousmane Sonko bokk na ci li waral muy woowee kii di Macky Sall dictateur. ginnaaw tamit euh, journaliste bi daal dina wéy di ko laaj ndax euh, président Macky Sall boobu ba tey toog ngeen wala si ngeen déggante ngeen rek daal di waxtaan muy xam le ne amul benn contact si ñoom ñaar tooguñu benn yoon tey tamit déggante wuñu fenn ngir euh, mën a waxtaan muy wéy di xam le ne ay attaques yi nii ñu koy toroxal démb rek moo si mujj ndax nee na ab électricité bi moo yàqu foofu ca këram bi nga xamante ni moo waroon ñëw defar li nga xamante ni mooy euh, kër Ousmane Sonko ndax électricité bi moo amoon foofu jafe-jafe moom Ousmane Sonko mi ngi xam ne ni dañ koo daal di lankal ki nga xamante ni mooy électricien bi ba tax na sax ordinateur am bi nga xam ne moom lay jëfandikoo ak i tamit euh, téléphone am yi nga xamante ni moom la war a chargé daf ko mujjee rek jox doomam ngir bu dem ci dëkkandoo yi nga xamante ni ñoom la dëkkal à côté ngir ñu euh, chargé ko ko loolu yëpp bokk na toroxal gi nga xamante ni président Macky Sall mu ngi ko koy def waaye lu ci mënti am rek baal na ko jéggal na ko ci xol bu sedd tey di xam le ni euh, kii nekkul Macky moom nag mooy choisir kuy bokk ak ku dul bokk ci li nga xamante ni mooy élection présidentielle yu 2024 yi nga xamante ni moom la jógee moom Ousmane Sonko mi nga xam ne ni Macky Sall na dem ndax mu xam ni réew mi du réew mu donnante ko ci ay parents wam waaye tamit mi nga xam le ni carrément pays bi Sénégal du ab marché boo xamante ni dañ koy rek daal di jënd tey tamit mu ngi wéy di xam le ni 7 millions de Sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Sénégal ñoom ñooñu la rek ñoo mën a daal di euh, choisir kan mooy dul bokk te gis na ni euh, ginnaaw bi nga xamante ni yëkkati na xam na ni du bokk amul benn sénégalais a xam ne ni euh, ñi nga xamante ñoo génnoon di manifester bokkoon na ci élection yi nga xamante ni moom lañ jëm si kii di président Ousmane Sonko war cee rek bokk journaliste bi nag daal dinay wéy di ko laaj ndax pare nga pour toog ak ki nga xamante ni mooy président Macky Sall waaye Ousmane Sonko xamle na ni Ousmane Sonko xamle na ni moom nag lépp loo xamante ni jàmmu réew mi la ak lépp loo xamante ne day jëmale réew mi kanam moom Ousmane Sonko pare na ngir daal di koy rek def bu jaree toog ak Macky dina ko rek daal di li nga xamante ne dina ko wax mu xam ne ni moom Ousmane Sonko élection du am fii ci Sénégal te moom bokk mu ngi xam ne ni nag Macky Sall ak famiyam nañu rek daal di jël lañ fi am ci réew mi dem abal leen ci jàmm ak salaam moo ñuy woyaat di xam ne 17 millions de Sénégalais euh, ñoo ñëpp ñi si ëpp dañoo bëgg kii di Ousmane Sonko daal di rek bokk ci li nga xamante ni mooy yooyu le jongeen jongante moom Ousmane Sonko wëyaat di dëggal boppam xam ne ni euh, bis buñ demee élection nag une de temps après nga xamante tëj nañ li nga xam euh, euh, mooy jël yooyu le dogal te itamit moo jiite gi nga xamante mooy ministre de la justice moom Ousmane Sonko ne nañ ko laaj ministre de la justice mi nga xamante ni ci tànki Macky Sall ci ordre président Macky lay wëy woy di dox ñoom rek nag lay xaar nee na ndax tamit ku yàkkamti la yooyu lépp arrestation euh, ngir mu xool fan la wantent di bujjee ci gëtam wuy di xam ne ni tamit euh, démb dégg na ñu naan mënutul bokk ci yile élection moom muy xam ne ni euh, par force dafa war a ci li nga xamante mooy élection te éligibilité am na nañ musul ñàkk war a mën a bokk ci yooyu lépp élection loolu nag moo nekkoon ay kaddu yi nga xamante ne Ousmane Sonko daal dina koy échanger ak foofu te journaliste boobu nekk France 24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 Dakar, notre plateforme d'information.